baax li nga xam ne noonu ngay daan rek suñu programme fii ci Leral Jamono ak itam ñu ngi dégloo sur la 93.6 ñu bu baax tamit ñi nga xam ne ñoom la ñuy suivre saa su ne sur internet walfred.com wala sur la page Facebook eh, de Petit Déj ñu ngi waat ci beneen numéro seen matinal bi ngeen taamu seen bopp la nouvelle matinale ci Petit Déj amaat mbégte delluwaat ak yéen ñu ngi koy defee saa su ne di ci ànd ak ñi nga xamante ne saa su ne ñoom la mooy ku ci mel ni international ci ki nga xam ne mooy lépp jëm ci wàllu ak ganam tey ak it Monica docteur kër waaye ki nga xamante ne moom moo yor moom moo ñu di ibu moom tamit dinañ am na moom ci kanam tuuti laata loolu ma bàyyi la kàddu gi ñu nuyoo laata jërëjëf euh, maa ngi euh, nuyu plateau bi ñu fi toog commencé ko ci yow Seynabou euh, Ndiaye di nuyu Mamika di nuy euh, Ibou di nuyu euh, Omar jara suñu invité sport tey jii di nuyu sunu téléspectateurs ak sunu auditeurs yi ak ñëpp ñu ñuy déglu di ñuy seetaan c'est vrai tey jii dañuy wax ci maanaam li nga xam ne moom mooy jafe-jafe journaliste sportif yi yu ñuy jànkoonteel. su amee manifestation euh, bu rëy souvent dañuy am problème tey jii nag Omar Diarra nekk secretaire général bu association nationale de la presque sportive ANPS ñu ne a waxtaan fii ak moom xanaa rek ma euh, bàyyi ko moom mu nuyoo. waa jërëjëf Cheikh Tidiane maa ngi tout le groupe Walfadjri ñi fi liggéey ñëpp di nuyu ñuy seetaan. d'accord jërëjëf kon nag ma delluwaat la léegi. waaw ma lay fay bu baax Zeyna tey fi nga génn ci bleu noir baax na ak collier <laughs> voilà di la nuyu di nuyu également les fidèles téléspectateurs de la radio télévision Walfadjri euh, ni ñu koy defee rek saa su ne lu jëm ci wàllu wér-gu-yaram dañuy fas yéene di waxtaanee euh, lu jëm ci wàllu nag ñu ngi ci octobre rose euh, weer bi yëpp ñu daal di koy jagleel lu jëm ci feebaru wenn ci loolu nag daaw daal dinañ ci defoon li nga xamante ni moo jëm ci wàllu témoignage ak ñu fas yéene tamit waxtaanee itam tuuti lu jëm ci wàllu complication feebar bi nag di feebaru wenn ñu gën koo xam nag ci cancer du sein ndax nag na gannaaw sax dañuy def ay ablation mammaire ak yeneen ni mel ngir nag euh, ngir sauver ki nga xamante ne dafa daal di feebar waaye itam lu jëm ci wàllu euh, complication xaw na xaw na bakk takku tuuti donc ci loolu la ñu fas yéene waxtaanee ak li jëm ci wàllu témoignage ci kanam lay doon Zeyna. voilà merci beaucoup Zeyna ni nga ko waxee noonu la ñuy daal di wéyalee waxtaan bi euh, parce que nag boo xoolee lu jëm ci wàllu complication feebar bi nag. complication bu njëkk biñ ci euh, mën a seetlu bokk na ci euh, faatu nit ki daf koy day faat ki nga xamante ne dafa am euh, feebaru ween bi nag di cancer du sein parce que nag ñu si bëri dañuy daal di toll ci état métastase bi maanaam feebar bi dafay daal di law ba nga xamante ni dafay sonal borom ba mu daal di koy mujj faat waaye nag li nga xamante ni moom moo di complication majeure bi bokk na ci faat nit ki waaye beneen complication probable bi complication ou pas bokk na ci li nga xamante ne nag moom moo di ñu dem ba dagg gu ween bi maanaam ñu dégloo ko lu ñu defal ko li ñuy woowee ablation mammaire parce que nag boo xoolee sur le point esthétique bokk na ci li nga xamante ni euh, soxna yi ñu ci bëri sax daal di bugguñu ko carrément mais nag bokk na ci li nga xamante ni euh, dañ koy faral di def bu bu feebar bi euh, tolloo fenn ba mu sonal nit ki da ngay gis que ñu daal di dagg ay weenam waaye nag bu ñu fàttee li nga xamante ni moom moo jëm ci wàllu antécédents familiaux yooyu mooy ni ma ko waxee sa maam amoon ko sa yaay amoon ko yooyu te mun nga am nga daal di koy am waaye itam règle précoce nga xamante ne euh, xale yi léegi dañ koy faral di teel a gis maanaam nga gis ko à l'âge de de douze ans maanaam euh, fukki at ak ñaar wala fukki at ak ñett waaye itam lu jëm ci euh, wàllu li nga xamante ni moom moo di ménopause tardive bi maanaam nga toog ba par exemple ba cinquante cinq ans doog gis li nga xamante ne nag doog arrêté li nga xamante ne nag moom moo di gis mbaax donc ci loolu dañuy gis que ni carrément dafa am risque accru bu nga xamante ne boo jëm ci wàllu cancer du sein di feebaru ween waaye itam lu jëm ci wàllu tabagisme itam dañ koy faral di seetlu bokk na ci antécédent bokk na ci wàllu euh, facteur de risque yi nga xamante ni daf koy daal di euh, joxe Euh, comme nag complication yi wax nañ ci wax nañ itam lu jëm ci wàllu antécédent yi parce que tout le temps dañuy bëgg nit yi bu ñu koy déglu euh, donc euh, ñu ñuy daal di xam carrément feebar bi nga xamante ne moom la ñuy daal di waxtaanee mais tout le temps lu ñuy waxtaan itam dafay baax ñu am lu jëm ci wàllu preuve à l'appui donc ci loolu daal dinañ defoon témoignage xam naa nag wax bi du bari noonu ndax biñ ko defee donc yàggul tuuti boroom dafa daal di faatu ñu dellu siwaat ci image yi ñu ànd seeg maam Sidi seetaan ko si kanam ñu dellu siwaat ci plateau ci déj voilà euh, gis nga lii lañ leen fi indiloon ci image yu jëm ci wàllu feebaru ween bi kon saa veut dire feebaru ween bi nekk na feebar bu nga xamante ne waruñu di ko euh, sàgganee ndax nag boo ko sàgganee gis nga dafa nekk lu nga xamante ne euh, jafe-jafe yi daal dina bëri donc xam naa ni wax bi du bëri ndax nag bu ñu jëlee image yi yàggul tuuti ci weeru koor bi noonu juste bu mu jeexee donc ci la daal di génn àdduna waaye nag daal dina fi bàyyi doom bu am je pense sept donc lii lañ leen fi indiloon Zeyna déjà. man saa yu nekk waaw saa yi nekk ñun ne ma ba. bii man non c'est que man bi maa ngi koy soog a dégg sax. ah. man daal téléphone téléphone yi dina dofloo nit de. téléphone yi dinañ dofloo nit de. luy loolu. ah. mu ah mu def ma snap nap. Snapchat <laughs> d' accord donc ñu jéem a expliquer déjà lan mooy Snapchat euh, ak kañ lañ ko créé donc euh, Snapchat benn application la boo xam ne mu ngi existé depuis 2011 euh, septembre 2011. en fait euh, ñaari développeurs ay étudiants ñoo ko amoon comme projet euh, c'est des étudiants américains qui ont étudié euh, dans à l'université de Stanford donc ñoom idée bi nan la ñëwee seen xel en fait dafa amoon benn scandale sexuel bu amoon New York benn disons benn politicien la woon boo xam ne dafa daan dafa amoon dafa faraloon di waxtaan ak ay xale yu jigéen mais da leen daan yónnee aussi ay photos yu xaw a doy waar donc malheureusement pour moom benn photom filtré et ça s'est retrouvé dans la presse à scandale ba tax sax mu perdre euh, postam voilà donc xale yi ne lu tax ñoom duñu créer application boo xam ne di nga waxtaan ak nit yi di nga yónnee vidéo di nga yónnee euh, ay euh, photo mais ça te permet aussi de d'être plus en sécurité parce que photo yooyu boo ko yónnee en fait dafa am dure de vie bu limitée da koy programmer pour mu doon ay photo yoo xam ne nit ki bu ko seetaanee rek dafay supprimer boppam en donc foofu moo ëpp sécurité euh, par exemple ay euh, réseaux sociaux yu mel ni Facebook par exemple wala Instagram parce que yooyu di nga gis ne loo publier rek moomatoo ko donc boo fexee ba publier ko rek nit yi mën nañ ko copier di ko di ko transférante et cetera alors ko foofu amul ak euh, Snapchat bon amul woon après si fin bi nañ gis ne lu bari évolué na donc bu ñu xoolee tuuti historique bi donc bi ñu ko créé en 2011 bi ñu demee ba 2013 affaire bi commencé am ampleur. Donc il y a à peu près 4 euh, millions d'utilisateurs dans le monde en fait donc euh, bi mu demee ba am doole nag lu mel ni Facebook jéem na ko jënd mais euh, créateurs yi bañ après lu mel ni Google jéem na ko jënd aussi proposé woon nañ leen 4 milliards de dollars mais ñu bañ parce que actuellement en 2015 bi ñu xaymaa entreprise bi ni mu toll ci wàllu koom-koom ñu ngi koy xaymaa ci 15 milliards de dollars donc je pense qu'en 2013 en 2014 ils ont eu raison ne pas vendre voilà donc bu ñu jàllee foofu euh, en 2014 quand même woon nañ leen donc euh, nga gis ne foofu tamit même sécurité bi même buñ ko buñ ko moom la ñu gën a talaxoo euh, dafa des ba léegi donc en 2000 2014 euh, euh, piraté woon nañu à peu près 4 millions de de de comptes donc loolu di nga gis ne dafa tiital ñu bari mais terewul amélioré nañ sécurité bi ba tax na nit ñi ñu ngi koy utiliser léegi. donc euh, Snapchat en fait utilisation bi simple la boo xasee ba ba télécharger ko donc simplicité boobu moo tax ba actuellement il y a 350 millions de snaps euh, qui sont publiés par jour dans si àdduna bi yëpp. voilà donc euh, en fait boo publier photo snap lañ ko tuddee boo publier aussi vidéo snap lañ ko tuddee voilà donc euh, euh, en même temps donc li ma expliqué mooy que boo publier sa photo rek 10 secondes plus tard wala une seconde plus tard yow yaa koy programmer mais euh, par exemple durée de vie durée de vie dama bëgg mu doon 2 secondes 3 secondes wala 5 secondes après mu supprimer boppam mais léegi dafa am utilisateur yoo xam ne aussi dañu dem ba gis ne loolu bon arrangé wu leen naan ay story euh, story en français mooy histoire donc loolu daf lay permettre nga jël plusieurs photos par exemple nga dajale ko doon mu doon benn fichier boo xam ne boo ko boo ko publier dafay dafay défiler comme ay diaporama euh, voilà donc euh, nit yi mën na ko seetaan seetaanaat ko mais durée de vie bi su boobaa day doon 24 heures benn fan lañ la may pour nga seetaan ko après fichier bi ëpp dafay éliminer boppam aussi donc c'est la c'est le même principe aussi pour vidéo yi da aussi dañ lay limiter parce que quand tu ay vidéo yoo xam ne entre une seconde ba dix secondes la donc warul gudd donc même booy euh, booy wane disons une partie de ta vie warul jiyaatu ta exactement donc mën nga dajale plusieurs vidéos def koy stories story euh, aussi et puis 24 heures plus tard mu supprimer boppam voilà donc euh, donc depuis 2014 en fait avant euh, vidéo ak image rek nga mënoon yónnee mais depuis 2014 dafa am ay innovation yu ñu si yokk comme par exemple euh, chat bi donc ce qui te permet par exemple de communiquer ak nit yi via texto comme euh, Viber wala yeneen application yu demee noonu et puis yokk nañ si aussi euh, benn euh, service boo xam ne boo yónnee image mën nga mën nga dessiner donc yooyu yëpp nañ ko gis en détail après si fonctionnement yi mën nga dessiner ay étoile dessiner ay cœur nga foto nit def yokkal ko bakkenu bakkenu fàtte naa <laughs> désolé c'est direct léegi euh, euh, sinon aussi mën nañ def mën nga yokk aussi ay filtre jël image yokk couleur yi wàññi couleur yi améliorer euh, pour photo bi gën a taaru maanaam léegi su régie bi pare bu pare donc ñu xool nan la ñuy installer ak nan la ñuy utiliser Snapchat. voilà donc euh, euh, boo amee euh, ça dépend si téléphone bi nga par exemple fii capture d'écran bi iPhone donc da ngay dem par exemple si App Store bu fekkee iPhone nga yor sinon nga dem Google Play wala Play Store bu dee Samsung sans beaucoup faire de publicité voilà donc première page bi mooy apparaître donc fi ñu en fi ñu encadré en rouge mooy get version anglais la mais sinon version française da ngay lire installé installé. voilà donc boo installé ñu jàll si deuxième image bi donc euh, en fait installation bi da ngay télécharger ensuite boo télécharger application bi mu installé donc boo ko ubbee bi mooy première page bi ngay jot en fait première fois ngay ngay utiliser euh, Snapchat donc il faut nga inscrire donc il faut nga cliquer si bouton bu bleu bi sign up moo lay permettre euh, benn formulaire déroulé wu donc foofu dañ lay laaj sa tour sa sant laaj le nom utilisateur bi parce que pseudo bu la neexee nga bañ joxe sa vrai tour pseudo boobu la ñuy gis euh, si Snapchat dinañ la laaj aussi lu demee ni sa say at dinañ la laaj euh, aussi euh, sa adresse mail ak mot de passe bi xam ne mooy tax nga am accès si euh, application bi mais surtout dañ lay laaj sa numéro de téléphone foofu dafa am importance parce que une fois que nga installé Snapchat en fait dafay dafay xool sa répertoire dafay laaj autorisation pour am accès si sa répertoire donc boo ko autorisé mu am accès si répertoire bi dafay xool sa contact yi xam ne inscrire nañ Snapchat mu téléchargé ko automatiquement comme ça nga mën a waxtaan ak ñoom di yónnante ak ñoom ay ay euh, élément vidéo wala image exactement donc ñu jàll si troisième image bi donc fii nii par exemple euh, moo lay permettre nga rajouter contact yu donc bu fekkee ne ki ngay rajouter am nga Snapchat mu ngi fonctionner donc euh, léegi fii nii commencé na fonctionner il faut nga télécharger say contacts donc euh, contact yi comme ni ma la ko waxee il y a une première méthode mooy que ne euh, contact ci téléphone bi dañuy ñëw automatiquement mais léegi man nga dem si yeneen réseaux sociaux nga gis par exemple koo xamul numéro téléphone am mais mu bind fenn euh, pseudo Snapchat bi donc foofu mën nga def recherche boo ko gisee nga yónnee ko invitation et puis moom dafay accepter invitation bi une fois mu accepté ko rek dafay bokk ak ses contacts aussi su boobaa ngeen commencé échanger ay ay mën nañ passer si prochaine bi. voilà donc fii nii en fait li mu lay permettre mooy nga def nga commencer utiliser réellement euh, application bi donc bouton bi ñu encadré en rouge euh, ça te permet de prendre une photo donc bi boo ko bësee rek bàyyi photo lay doon mais soo ko bësee maintenir ko pendant quelques secondes mën nga filmer sa bopp passer message bi nga soxla et cetera après nga man mën ko yónnee donc mën nañ passer ci prochaine image bi voilà donc euh, euh, cinq bi. Euh, donc bouton bi ñu encadré en fait vu que euh, euh, lii bi boo ko diffusé dafay supprimer boppam donc yow bu fekkee ne image bi wala photo wala vidéo bi daf la neex trop mën nga cliquer ci bouton bi pour télécharger ko c'est-à-dire da nga koy mémoriser ci téléphone bi ngay utiliser en fait voilà donc bouton bi loolu rek lay servir mën nañu passer ci prochaine image bi chronomètre avant ngay yónnee im bi image wala vidéo donc da ngay euh, ci icône bii nii icône bi actuellement fichier bi au bout de trois secondes lay lay supprimer par exemple donc euh, mais man nga ko laal ba pare nga continuer nga yégal ko wàññi soit une seconde wala nga yégal ko ba 10 secondes mooy maximum bi donc bouton bi loolu rek lay jëriñ euh, mën nañ passer si prochaine image voilà donc fii boo amee vidéo wala image bi Euh, boo cliquer si partie bi ñu encadré en rouge moo lay permettre nga def légende légende du leneen lu dul titre pour wanee ne par exemple photo bi yaa ngi ko jël ci occasion anniversaire wala yaa ngi ko jël ci occasion. may faral di gis ñuy bind genre euh, fii laa demoon ak fii exactement donc fii moom ngay cliquer comme ça nga inscrire titre bi plage laa ne woon wala anniversaire laa ne woon wala concert laa ne woon et cetera. donc euh, voilà bi. voilà donc fii mooy innovation bi moo wax ne moom lañ euh, andi woon depuis 2014. Mhm. boo cliquer ci crayon bi ça te permet euh, nga def dessin bu ndaw donc ay kër wala nga yokk si ay étoiles affaire yu demee Euh, en même temps boo cliquer rek da ngay gis benn panel de couleur bi affiché wu. Mhm. à droite de l'écran donc nga tànn couleur bu la neex et puis li ngay dessiner justement couleur boobu lay nekk. d'accord ok donc mën nañ passer si beneen image. voilà donc euh, bouton bi ñu encadré bi ñu encadré en rouge moo lay léegi nga yónnee fichier bi. Hmm, mooy bu boo defee li ci def yëpp ba war ko exactement donc euh, bouton bi nga cliquer et puis snap bi dem. voilà ñu et justement mais bu demee dafa am léegi beneen réglage booy def. mooy ban contact nga koy yónni soit benn contact wala ñaar wala nga ah, yónni ko sa contact donc ko benn nit. deux wala. exactement parce que comme Facebook nga xam ne loo xas ba balancé ñëpp dañ ciy jot. du loolu voilà en fait fii tu as le choix. bu la neexee nga yónnee ko benn ñaar wala nga yónnee ko ñëpp. voilà donc euh, en fait euh, loolu mooy euh, loolu moo gën a tax sax nit yi utiliser ko parce que mm-hmm. dafa am loo xam ne ça reste privé entre say xarit walla benn mbokk boo xam ne moom rek affaire bi ça reste donc mm-hmm. moo tax moo am importance je pense desoon na yeneen image ok diis bi donc fii nii par exemple bu léegi xam nga pare nañ si wàllu envoi bi léegi boo jotee snap bu bees. Mhm. fii mu ngay am euh, notification bi donc par exemple fi ñu encadré en rouge moo lay wax ne am nga snap euh, snap bu bees donc da nga siy cliquer pour euh, dérouler lii bi mën nañ ko xool si prochaine image bi voilà donc fii nii par exemple dinañ gis ne team Snapchat moo benn snap. Mhm. donc boo si cliquer di nga seetaan soit image bi wala vidéo mais une fois nga seetaan ko rek dafay détruire boppam exactement <laughs> ok voilà ñu jàll si image beneen bi euh, ok léegi fii mooy réglage yi donc boo duggee si euh, réglage fii par exemple tu as la possibilité parce que euh, mooy comme li ma doon wax rek depuis 2014 en fait ñu bari dañ ne c'est dommage que mënuñu di seetaanaat yi donc boo yónnee wala ngay recevoir ay fichiers en fait tu te fii option bi boo ko activer moo lay permettre ngay seetaanaat ay vidéo mais de toute façon 24 heures rek. lay def plus exactement. Mm -hmm. donc ñu jàll prochaine image. voilà donc la par exemple euh, di nga gis ne euh, utilisation bi donc euh, fii par exemple boo bëggee yónnee con benn image. Mhm. contact boo xam ne mas ngeen waxtaan. parce que en fait en fait bi boo leen waxtaanee. conversation écrite wala li ngeen yónnente comme fichier yëpp une fois que nga fermer application bi boo ko ubbiwaatee da ngay gis ne conversation bi yëpp dafay dem du garder historique ko fait comme yeneen application yi donc foofu tamit sécurité gage de sécurité am na solo de hmm? aspect sécuritaire bi moom baax na waaw waaw ak confidentialité waaw xaw ma ndax euh, voilà donc fii nii il nga cliquer ci contact bi maintenir ko xaw déplacer sa sa loxo vers la droite comme ça mu génne icône bu bleu bu ndaw bee ngay gis. Mhm. donc foofu boo ko boo ko rek conversation bi mooy mooy. feeñoo exactement yi nga xam ne moom ngeen defoon yu yu yu précédente. Euh, yooyu dafay supprimer yu page bu bees mooy. affiché wu ngeen ko ne nga commencé waxtaan ak moom. voilà donc ñu xool euh, dernière image bi. voilà donc bu euh, bouton bi mooy permettre nga am accès bu fekkee yaa ngi ci conversation bi nga mhm. bëgg a yónnee vidéo Euh, bon soxlawul manipulation yu bëri fi ñu encadré ngay bës ak maintenir ko mu doon vidéo bu bees boo paree mu yónnee boppam automatiquement voilà donc loolu mooy woon euh, Snapchat bon am na quand ay critiques parce que li nga gis ne application boo gis dina am ñeneen ñoo xam ne développeur lañ aussi am nañ xam-xam donc ñooñu dañu créer yeneen application yoo xam ne boo ko amee si sa si sa si sa téléphone pardon dafay tax Euh, vidéo boo jot wala image boo jot mu sauvegarder ko malheureusement automatiquement si téléphone bi donc loolu moo xaw a yàq mbir yi Snapchat mm. actuellement malheureusement ouais. okay. donc ñi koy faral di utiliser souvent bon na doon euh, ay personnes lambda euh, am nga ay xarit par exemple nga am benn copain nga ne ko nañ dem plage wala nañ dem boîte de nuit mu nekk fii di nonchalant nonchalant mm-hmm. donc amul envie dem donc boo demee ba foofu par exemple ambiance bi neex pour tàngal xolam ne ko rëccul li mën nga def benn snap yónnee bu ko donc a fait application boo xam ne c'est fun mm-hmm. euh, boo xam ne da nga koy da koy adap da koy adapté et puis voilà parce que boo am na ñeneen ñoo xam ne dañ koy gis naan ay mbiru ngistalu wala bëgg a wane wala ñu ànd ak ki nga xamante ne moom moo di euh, coach international ma lay waat bu baax di la bàyyi nag nga da nga da doon kii léegi nuyul ba pare. non waaw man daal man xaw ma voilà <clears throat> maa ngi euh, nuyu ñëpp di ñëw ci wàllu tàggat yi xam c'est vrai mm-hmm. euh, tey jii dañuy waxtaanee euh, maanaam li nga xam ne moom la journaliste yi di jàngoonte di problème yi ñuy dajal bu ñuy dem di defi seen reportage jàpp nañ ne day am ñoo xam ne bu xew-xew lu neex bu amee walla daal kii rekk ñu écarté leen teg leen fële au profit ci euh, yeneen télé tey nag dañ ci euh, invité kii nga xam ne euh, moom mooy Omar Diarra prétexte bi nag mooy lenn mooy que ñëpp gis nañ ne Lions yi bi ñuy ñëw jugee jël coupe coupe bi ba di ñibbisi ca aéroport ba dañoo jël benn télé rek lañ jël dugal ci biir mooy RTS jël télé yëpp ak journaliste yëpp paqueté leen teg leen fële. ne leen doo leen dugg loolu man boog defoon naa ne jeexoon na Sénégal amoon na bu njëkk ba mais jëkkate pratique boobu mu ngi fii ba léegi ba tax na Omar Diarra di secrétaire général bu ANPS association nationale de la presse sportive euh, Omar Diarra na def. maa voilà Omar <clears throat> gis nga li xewoon euh, maanaam. Euh, jour bi gaynde yi gaynde yu jigéen ñëw. Mm-hmm. nekk mooy li ma wax léegi euh, yow loolu noo gisee loolu. waaw je dirais que lu doy waar la parce que comme ni nga ko waxee au Sénégal en 2015 je pense que acte yu mel noonu je pense que dépassé woon nañ keroog man daf ma bett daf ma surprendre parce que je me que est-ce que intérêt bi amoon na équipe nationale moo doon ñëw tey jii je pense que sélection nationale yi sénégalais yëpp a leen bokk. contribuable sénégalais ñooy génnee seen xaalis prime yi ñu fay joxee sénégalais yi ñoo koy joxe et que sénégalais yooyu presse bi qu'il soit privé ou ñëpp ci bokk mais que aussi euh, euh, ay situation euh, la yoo xam ni mënoo expliquer lu tax mu war a am amul intérêt amul woon benn intérêt équipe bi ñëw na jël na coupe bi indi na ko te que ba koy jël walla ba mu koy tàggat pour wut ko xàjjalewuñu woon presse privée ak presse publique mais tey équipe bi du ñëw ba foofu ñu ne tey diw dafay dugg et diw du dugg parke leen comme ay ay ay xar dafa doy war loolu lu metti la man metti na ma lool parce que bis boobu jaaxle naa parce que je kan moo war a joxe ordre bu mel nii kan la war a doon question boobu la ñu a posé parce que jusque responsabilité yi kenn posé wu ko benn autorité officielle laa dégg mu def ci déclaration mooy ministre des sports moom nee yëgu ko parce que moom Yaoundé la demoon et bi mu ko yëgee metti na ko mais que je sawar exactement Cheikh Tidiane lu tax loolu et ay actes la yoo xam ni dañ ko war a bannir ci suñ suñu société. voilà balaa ñuy euh, continuer ci maam Anta defoon na ci benn euh, jàngat ñu ñu dem ak maam Anta taskatu xibaar yi ne ci privé bi ñoom ci dimanche bi dañ leen ay dugg ci aéroport international Léopold Sédar Senghor ca bi ñuy teertu gaynde yu jigéen yu basket yi nekk nag loo xamante ne tàngal na ay xol ba tax ñu di ko ñaawlu. dañ koy ñaawlu d'abord parce que mën nañ du ma wax ne dañ leen toroxal mais xam nga du du lu mel noonu di fi am tàmm nañu Sénégal bu toujours bu événement amee ñi nga xam ne ñoo fa amul benn njëriñ ñoo xam ne kenn soxlawu leen xam ne amuluñu jóge bokk ci événement bi dara ñoom la ñuy jël teg leen ci kanam ñeneen ñi nga xam ne seen liggéey moo leen indi wala ci lañ bokk ñu beddi leen tege leen ne la ci ginnaaw xañ leen à la limite def seen liggéey. balaa ñuy falu gannaaw ñi nekk journaliste nekk presse privée la ñuy daw mais une fois bu ñu falu ñu soog indi distinction presse privée presse publique ñuy seppi suñuy confrère RTS amuma dara lu ma ñaaw si ñoom suñuy confrère RTS suñuy confrère Soleil wala suñuy confrère une fois sur le terrain bu ñu nekkee benn lii soxal journaliste presse privée presse publique c'est pour informer opinion sénégal yëf ji sax dañ kaa mujj def politique bu ñu sukkandikoo ci kàddu rédacteur en chef bu yéenekaay bi di populaire di na Dem am na sax ñu jël collé ci naan c'est le trophée de l'émergence maanaam dama yaakaar ne que ñàkkum manque respect wu Sénégal mënul sori ba àgg foofu lu ñu am rek ñu tuddee ko émergence fekk si rek réew moo xam ne kenn gisu fa émergence. dama yaakaar ne dafa excessif dañu ëppal ci lu ñuy def yëpp désordre bu rëy bi ci am ci aéroport parce que ay anciens lionu basket ñoo ñëw aéroport ñi nga xam ne ñoo gagné woon coupe d'Afrique basket avant génération bi ñu ne leen duñ dugg sax salon d'honneur ba léegi ci kàddoom suñu naataango bi di na dem daal dina xam le ni itam billet avion Lyon yi moom yemboon na ba noppi ndaxte FIBA lépp lay nas ba mu yemb kon nag lu tax ñuy jël avion lëmm di ko yónnee suñu gaynde yu jigéen yooyee te ba noon kaa def ca ba ñuy dem Yaoundé lu di mel daal mi ngi mel ni jël xaalisu réew mi rek taal ko jëppeet avion bi ñu envoyé xanaa yàqum xaalis mais avion bi dem ak ñàkk dem dimanche lañ doon ñibbisi avion présidentiel bi ñuy dem la ñu ko waroon jox mu yóbbu leen pour wàññi leen coono voyage nga xam ne bu ñu àggee dinañ nekk àgg ci condition de fraîcheur nga xam ne nañ mën compétir normalement. ndam boo xamante ne bi ñu ko amee ñëpp kontaan nañ wante fan la ñu yàqee mooy bañ waree tertu suñu gaynde yu jigéen yooyee ñu indi xaaj ak seen di beral loxo ñii di bàyyi ña ta des loolee nag dem sax bay ñagasal ndam boobee nga xamante ne suñu gaynde yu jigéen ñi indil nañu ko nekk nag loo xamante ne taskatu xibaar yi ne ci presse privée bi ñaawlu nañ ko torop voilà euh, Omar mu bàyyi la nga commenté fii rek. non dëgg la ki nga gis noonu Arouna dem mooy premier vice président ANPS. Mhm. Euh, Nicolas aussi mooy secrétaire général adjoint. Mhm. je pense que li ñu wax dëgg la parce que tey jii ñun ANPS amuñu xàjj ak seen diggante. Mhm. heure bu ñu génnee muy coupe d'Afrique muy coupe du monde muy Jeux olympiques fàtte nañu sax kan mooy membre wala doo membre ñun kuy sénégalais nekk ci média nekk fa. dañ lay encadrer dimbale la parce que on oublie que ni euh, euh, confrérie la je pense que lu ñuy tuddee confrérie amatul xàjj ak seen. tey jii ci murid yi ci tiijaan yi yéen a bokk sëñ bi sëñ bi boole na leen mais tey jii ñun média bi moo ñu boole. amatul foo xam ni war nañ fa mën a taxaw ni diw dafay dugg wala diw dafay génn et que lu doy waar la parce que bu ñu ko bàyyee lii raam ci ñag bi la jëm yegg na fa sax mais dafa nekk loo xam ne tey jii dañ ko waroon fàtte dépassé ko. il faut nag ñu teg fa suñu loxo teg fa suñu baaraam pour que ëllëg mu bañ a am na nekk acte bu mujj boo xam ne dañ koy teg à l'endroit de la presse surtout privée parce que presse privée bi li muy liggéey li muy liggéey presse publique bi gënu ko valeureuse tey jii presse euh, publique boobu su amee soxla su amee grève su amee problème presse privée day dem couvrir ko génneel ko ko te li ci ëpp ci presse privée bi lay jaar pour que seen problème réglé donc ñun amuñu xaj ak seen suñu biir bu ñu kenn xajalee bu ñu kenn diviser je pense que loolu mooy situation bi posé wu mais il faut que ñu taxaw ci comme ni ma ko waxee sànq situer responsabilité yi en tout cas ANPS ñoom lu ñu ci war a def dinañ ko def pour que ëllëg mu bañ a amati parce waratul am d'accord man dama am benn benn benn juste benn préoccupation parce que j'ai j'ai j'ai les images l'autre jour gis ni que presse bi ñëpp ci biti lañ nekkoon. Mhm. ñu bàyyi benn euh, kii rek mu dugg def li muy def benn affaire mooy problème ba léegi j'arrive pas à comprendre raison yi. Mhm. ba léegi bu fekkee yéen am ngeen ci explication yu gën a claire man boog je je n'arrive pas à me waaw ni ni ni nga wax seen bu dëgg la ah, parce que il faut aussi ñu ñu ñu expliquer ñu lan moo ko waral. parce que déjà équipe bi comme ni ma ko waxee sànq jël na trophée bi ñëpp bëggoon jël trophée bi 16 équipes ñoo fa nekkoon ñëpp bëgg koo jël te ci 16 équipes yooyu bi ñuy dem Sénégal amoon na fa 12 journalistes yoo xam ni ñun en tout cas ñoom la ñu am na loo xam ne ANPS def na ko ci encadrement bi mu la doon wax xajalewuñu seenuñu jë seetuñu kii fii la bokk wala fii dañu def li ñu war a def et ñoo ñu fa nekkoon ci boo xoolee bu ñu dee 12 presque les 8 ou les 9 sont de la presse privée même si bugguma terme boobu parce que je pense que la presse est une et indivisible. amatul mais comme li ngay wax nii ban raison tey moo war a posé wu euh, ñu war ko def parce que ñoom li ñu doon bañ. mooy peut-être xëy na Tafa Gaye problème bu mu am ak Ramatu mooy situation bi ñu doon wax les lions sont vieilles ou autre et que ay débat la ay débat la yoo xam ne tey jii dafa permettre équipe bi évoluer wala équipe bi yegg foo xam ne xëy na sénégalais yi xaaruñu ko woon. donc loolu noonu du ay raison yoo xam ni waroon na mën a tax bu fekkee loolu la <coughs> ah, waroon na mën a tax ñu ne tey ji ñii dañuy dugg ñii dañuy dugg te boo xoolee fi ñu leen bàyyi dafa sori. Mhm. image yooyu gàcce la pour Sénégal da ngay gis caméraman fu wala 2S ñu ngi ko bàyyi fu sori waa RTS la ñu jël ñu dugg je n'ai rien contre mais rafetul ñoom sax seen bopp dañu waroon bañ et lu may ñaan loolu boo amatee que la presse euh, wane boppam. <laughs> parce que yenn situation yi dañ ciy jéem a wane suñu bopp loolu bu amatee ñun aussi nañu wane suñu bopp mooy lan ñu boycotter tout ce qui reste de cet événement parce que je pense que bu ñu continuer woon acte bi ñu posé palais kenn du fa dem. Mm-hmm. bay génnee image yi malgré tout yéen professionnels que vous avez été. comme tout la presse le reste de la presse vous avez été là-bas indi ay image yoo xam ne tey jii ñu bëri bénéficié nañ ci. Mhm. donc je pense que amul raison bu amul benn raison. bu ñu mën a expliquer du du du bafouer un peu droit à mais mais mais il faut nga am noo xam ne di nga ko def. Mhm. genre recul lay nekk pour mieux sauter. dal na fi dalaat fi man am na benn événement sportif boo xam ne dem naa fa. mais bi ma demee waa ji ko organisé bi ñu ñëwee ma gis ni dafa doon jéem a xàjj ak seen moi j'ai pris toutes mes responsabilités dama ni gars yi hey. man ku ñibbiwul man damay ñibbi jour boobu dañ ko boycotté waa ji ci boppam woo man ni ma lu tax lii ma ne ko ñun am nañ fulla am nañ fayda ñun euh, du du ñu ay mécanicien ñoom dañoo regroupé wu du ñu ay menuisier du ñu ay charpentier <coughs> ay journaliste lañu ñoo bokk métier bi ñuy def nit daf ñu ciy respecté jox ñu ci lu ñu moom ñu jël ko boo ñu ko joxul ñu jëlal ko suñu bopp. d'accord. voilà euh, c'est man euh, comprendre naa bu baax Omar Dia c'est vrai. on ne peut pas comprendre si tu es man man premier responsable bi man dinaa ko wax man je trouve que premier responsable bi ci wàllu sport moom mooy ce son les fédérations ñoom ñooy les premiers responsables parce que lu tax ñoom ñoo moom événement bi je l l'exemple du basket bi nga xam ne moo dem bi gars yi demee ba ñëw mais fédération bi bi mu gisee loolu waxoon na ne eh. yéen a ngi tere ñoo xam ne suñu ay partenaires lañu ñoo fi nekkoon ak ñun il a benn laa xam nga loo tax gis nga euh, nit booy def da xam looy def ñi def euh, euh, jëf ju ñaaw ji def nañu loo xam ne xamuñu ko ci yoon yi bi fi yoon yi bi leen di dàq ca seen hôtel ba. Mm-hmm, mm-hmm. kan moo relayer information bi. c'est la presse privée. Mm-hmm. ana public ba. sañu ñu ko woon sax wax. looloo tax nag yéen itam. looloo tax nag yéen itam genre yi kenn du leen fa yóbbu ndax bu leen fa yóbbu woon li kii wax ngeen dugg ci mbóot yoo xamante ne sant ñu leen ko. déglu ma même looloo mooy sunu liggéey loolooy suñu liggéey suñu liggéey mooy dégg nga joxe xibaar. lu fa xew mais doo génnee yëfu naa doo dem ba di jéem a di gis lii ngay dem wax leen lu fa am. Mhm. di rafetal du c'est pas notre rôle. Euh, bi ñuy jooy affaire prime euh, Lyon yi tey jii ñuy mm. nekk di kii bi ñuy jooy ñu jox ñu nekk ca hôtel ba ñu yuuxu kan la woo la presse privée mm. moo ko wax ba saafaral seen problème fédération bu fi am problème presse privée mooy saafaral problème am kon nag tey jii kii doon régler sa problème bi muy metti mu ànd ak yow waaye ngir yàlla bu bànneex amee dangay ànd ak moom li ñuy wax li ñuy wax égoïsme mooy loolu yow fu mu neexee fu mu mettee ki nga gis ah waaye nekk bu neexee àndal ak moom kon je dis que ce sont les chargés de communication yi nekk ci fédération yi ñoo deful seen liggéey ñoom tamit ils sont tous ils sont responsables avec les fédérations parce que tey jii Babacar Ndiaye di président fédération bu basket euh, Bamba Kassé bi nekk chargé de communication waroon nañu xool loolu ñaaw lu ko taxaw ñu ne ñoom duñ ko accepter duñ ko nangu parce que man am na fi benn affaire boo xam ne am na gis nga tamit journaliste yi fulla dafa jot nit boo amul fulla dañ lay ñàkkal fayda lii am nii ñu koy defaat ñu koy defaat gis nga lii Omar wax léegi sànq wax na dëgg il est temps bu ñu defetee loolu ñu ñëpp ñu def bloc ne defuñu la preuve ma jox la benn ay kii benn anecdote stade Demba Diop benn entraîneur match bi tas ñu ñëw conférence de presse mu toog mu xooy benn journaliste mu ne ko. Mhm. yow. man maa arrêté conférence de presse. dëgg la maa jug ba sax mu ne eh, boo ko tontuwul. doo tontu on arrête la conférence de presse. dafa mu def ko mujjee bàyyi daf ko mujjee tontu parce que jour boobu on était décidé. à ce que ñu génn salle bi yooyu bu amee ñun ñoo war a am fulla kon les responsables sont là aujourd'hui nag man Omar Diarra tamit man li ma leen di interpeller yéen waa ANPS mooy tey ji face à ce lii pour ngeen dindi ko lan ngeen di teg ci ko table bi lan ngeen war a def pour lii mu deñ waaw balaa may tontu sax ci question boobu dama lay xamal ni au delà de loolu am na leneen lu xew parce que journalistes yi woon fële ci Yaoundé man info yu ma am mooy que indiwuñ leen man dama nekkoon Brazza dama bëggoon a dem foofu mais finalement dama ñëw Sénégal mais avion présidentiel bi indiwu leen je pense que xajoon nañ ci waroon nañ ñëw ñoom ils sont revenus le lundi ou le mardi loolu aussi dafa doy waar avion présidentiel la ñun ñoo ko moom ñoom xaj nañ ci journaliste yi fa ne woon privé bi pour diir dañuy waroon a ñëw bokk ci dugg ci avion bi ñibbi si maintenant pour décision yi ñuy jël je pense que euh, comme ni ma ko waxee sànq lii mënatul continuer te waratul am te ñun on fera de sorte que dootu fi am parce que yaakaaroon nañ sax dafa jeex mais comme li ñuy wax monstre bi c'est un monstre froid dafa tëddoon di nelaw rek donc il a fallu lu tuuti am récupération commencé ñenn ñi yaakaar ni ñoo ko def fekk defuñu ko alors que ñi liggéey sax ñu ngi leen di xañ ñu yegg si fa donc ñun dinañ jël ay mesures yoo xam ni xam naa après bu ñu gisante à la prochaine réunion du comité directeur dinañ ko jël établir ko bind ko leeral ko bind autorités yi ñu war a bind déjà que le président Mamadou Koumé a fait une sortie pour condamner fermement et dinañ bind ñi ñu war a bind yëpp muy Synpics muy CORED ak ñëpp pour expliquer leen ko situation yii mooy yi nga xam ni ci lañ war a basé wu pour mën a dimbale presse bi mu avancer mais du ay yeneen situation yoo xam ni tey jii nit ñu ngi koy dund et que être du ma ni njëriñam barewul mais mënul dolli lu bëri ci presse bi évolution am donc loolu moom na sa xel dal dinañ jël ay mesures te yaakaar nañ ni bu ñu ci jógee après dootul am benn problème bu mel nii. d'accord. yi ak tey ñu ngi woon ci li nga xamante ne nag moom moo di euh, marché euh, friperie ñu gën ko xam ci fëgg jaay euh, gis ngeen na fi ci nan la duggee woon ci li nga xamante ne moom moo di boobu boobule ci lundi bi wax marché bi naka lay demee ak yu ni mel tey nag muy ñëw ci réglementation mu ñëw yi tamit ci jafe-jafe yi nga xamante ne ñoom acteurs yi ñu koy faral di jànkonteel ma bàyyi la rek nga daal di joxe li nga xam ne moom mooy éclairage yi waaw Nabou kon téema laa bàyyi nga balancer élément bi ah. ñu dem waaw ñu kon si dinañ dem seetaan élément bi dellusiwaat. ci biir moom léegi daanaka amatuñ ci dara. yére yi ñuy importé léegi baaxatul yi ci gën a bari lépp ay sagar lay doon. fi ne nii am na yu bari yoo xam ne dama koo taal mu ngi ma dugal ci biir saako bee ndax mënu koo jaay dafa am ay bon bon. bu fekkee ne sarbet la looy si lu lay may sens yéen da nga koy jaay ñi menacé ko yii gars yi di ko fomp wala si may sens su fekkee darab la bu bënnee noo defaa nga dagg loo xam ne nii suñ la wax suñ la waxoon na la man lii ma sol lii la fëggajaal si kaw ba suuf fu mu nekk nag ñëpp a ci dugg man gis naa ci ay indien gis naa si même ma naar gannaar xaw ma gis naa si daal waaw gis naa ko man daal temps bawol bawol laa ko xamee woon waaye léegi même gis naa si sax même pour fu tey sama mbokk yi gis naa leen ci bëri daal ñu ciy jëngu daal léegi des jënd moom du mot mais comme job bi business ñoo ko bokk des fois soo motalul mën nga dem boo dóoree après nga ñëw su soxla saal na baax daal su baaxee daal moom soolut. waaw waaw léeg-léeg nag suul bukki rek suul bukki lañ léeg-léeg nga dem ku mel ni man nag man moom duma duma duma kii duma lepp comme damay kii damay jaay di topp bagage ba mu jeex topp topp topp topp lu mot une semaine wala deux ma door a uti bagage am na ñoo xam nag dañuy dem eh, kii ak borom magasin yi boo leen ju leen bal baaxoo ñu joxaat leen beneen ñuy liggéey ak ñoom man na damaa ragal du ma liggéey ak kenn man sama bopp laay xamante ne ñoom ñi nga xam ne euh, ñoo yëngu ci waayum si euh, wàllu euh, jaayum friperie maanaam fëgg jaay ñoom ci lañu nekk jamono ji na fi ñoo ñoo gisandoo li nga xamante ne moom mooy élément bi yow mi nga xam ne yaa fi ndoxal war nga ñoo mën a indil yeneen ci ay leeral waaw non bu comme comme je pense que élément bi euh, wane na ay couleur am ba pare ndax comme liggéey boo mënti gis du ñàkk ay jafe-jafe xëy na ñoom euh, jaaykatu fëgg yi seen ay jafe-jafe mooy comme ni ko ni ko waxee ci élément bi euh, problème de qualité bal bi instant bi nii moo nekk seen jafe-jafe majeur parce que parfois di nga dajji bal je pense que waxoon naa ko lundi mais dara du si baax alors que bu njëkk fëgg jaay da nga ci ay prêt da ci daan gis lu nekk da nga ci daan gis ay yére yu nga xamante ni ay étiquette am sax mu ngi ci ba tey mais léegi euh, le problème euh, mooy bal yi ci boppam ñi koy exporté fii nii ci fa muy jógee euh, provenance bi ci boppam foofu la problème bi amee ndax yónneetuñu fii nii qualité bal bu baax loolooy waral la plupart des commerçants yu nga xamante ne nii ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi yëngu ci njaayum fëgg jaay dañuy dañuy am ay ay problème pour génn ci ñu ci bëri sax dañuy dañuy leb comme ni mu ko waxee dañuy leb Euh, jël bal après ñu dellu di ko fay comme ñeneen aussi dañuy dañuy dañuy jël seen xaalis joxe parce que parfois mën nga jënd benn bal lu ñu bëri xamul nga di ko topp un mois maanaam chaque jour nga lal ko jaay laali chaque jour nga lal ko jaay laali te sa bénéfice du génne yooyu c'est des pertements et yooyu ça arrive quand vraiment euh, la qualité de la marchandise wala des vêtements euh, baaxul ñu yónnee leen lu bon wala lu ni mel. Euh, loolu c'est un fait am na tamit yeneen bal yu nga xamante ne nii day day day tooy parfois Euh, comme sur euh, euh exportation bi ça se fait par le par le biais de la mer euh, bateau yi parfois bal yu bëri day tooy léegi bal yi bu tooyee yére yi en général xam nga ay yére moom bu teglantoowee surtout ay yére couleur dafay yëbbante parfois nga dajji bal fekk couleur yëpp mélangé wu yooyu aussi c'est des jafe-jafe yu nga xamante ni ñoom ñu ngi koy ñu ngi koy dund au jour le jour c'est des ay jafe-jafe la yu nga xamante ni. non non des jafe-jafe. waaw ñu ngi koy dund au au jour le jour ci ci seen marché boobu noonu le bu loolu jàllee aussi euh, inondation chinois yi ci ci ci ci dëkk bi xam nga bu nekk euh, da nga daan da nga daan gis ouverture des classes buy jege si da ngay parents yi dañuy dem euh, comme période bi ñu toll nii dañuy dem fripari tànnal seen doom yi wala bu ay fête di jot wala nit jógee vacances ñëw di ñibbi ñu def loolu mais léegi euh, chinois yi dañu dañu dañu dañu envahir dëkk bi à telle enseigne que dem jëndi ji fëgg jaay euh, chinois yi am nañ ko ba pare et en général ñi nga xamante ni ñooy usagers yi dañ la naan léegi chinois bi sax moo gën a yomb fëgg jaay bi moo ñuy gën a dimbali alors que fëgg jaay bi aussi cher na parce que euh, ni mu meloon bu njëkk melatu ko liggéey bi dafa bëri ay ay ay ay yu ci rax moo tax ñoom ils sont obligés pour ñu génn ci ñu cheral njaay mi mais chinois yi aussi ils ne la facilite pas du tout la tâche ndax dañuy sonn pour euh, pour pouvoir rek écouler leur marchandise ndax neexul aussi nga jënd benn bal euh, un mois boo sañoon jaay ko deux jours mu jeex mais parfois da nga koy à trois mois et sax jeex da koy mujjee jël stocké ko moo tax jaaykatu fëgg jaay ñi ci ëpp boo demee si seen kër yi da nga fiy gis fëgg jaay bu bëree bëree bëri bu nga xamante ni doo ko mën a sol si inutile si euh, inutilisable mais dañ ko fay teg quand même parce que duñu xam nan lañ koy def en fait euh, loolu bu jàllee aussi nag bu euh, y a beaucoup beaucoup beaucoup de concurrence concurrence mooy marché hebdomadaire yi bëri na yu nga xamante ni nii du ay luuma parfois ñoom ñi nga xamante ni ñooy jaaykatu fëgg jaay ñu bëri dañuy ñëw di tànnaat ci ñoom wala ñuy dem ci ci grossiste fëgg jaay tànn fa lu bëri génn former ay marché yu ndaw ci mbedd yi fa jaay yu bokkul ak lu may xaw ma ndax bàyyi ngeen ci xel parce que parfois dangay gis ci ci ay coin comme Gueule Tapée bi boo fa demee ci kaw pont bi ñoo ñu duñu ay luuma ils sont tout le temps la baax da nga leen fay gis ñu ñu ñu former marché bu ndaw di jaay fëgg jaay bi ngay gis ci luuma yi nga fay gis dàll yi ngay gis ci luuma yi nga fay gis fa la ñuy nekk di ko jaay alors que c'est même pas les luuma moo tax luuma yi instant bi nii dañu dañuy am problème yu yu majeur ndax vraiment njaay mi nabu ci ci tënk doxul comme ni mu war a doxee aspect sécurité bi aussi nit yi wóolootuñ ko ndax en général quand tu pars dans ces marchés là vite fait dañ lay tafu ndax primo benn allée lañ leen di jox pour ñu occuper ko dañuy am ay problème de place dañuy am problème de toilette seen seen seen ay toilette bokk na seen ay problèmes ndax amul benn marché luuma bu nga xamante ne nii am na toilette bu ñu leen octroyé la plupart des gens dañuy dugg ci kër yi ñaan ñaan ñaan def seen ay besoins naturels wala ñu ñaan jàpp wala ñu ñaan julli euh, loolu aussi c'est c'est c'est c'est un problème bu nga xamante ni nii euh, ñu ngi koy dund au euh, si ajoute aussi insécurité bi ma wax léegi parce que parfois tu tu tu pars dans ñu tafu la parce que voies yi dafay ndaw euh, bu ñu defee ay marché je me am na euh, am il fut un temps ñu jël leen. wutal leen yeneen locaux yu nga xamante ne nii moom la ñuy dëkk lu ma moderne yi mooy tente yu ndaw yooyu ñu leen defaraloon pour ñu dugg fa mm-hmm. am na ñu nga xamante ni dem nañ fa mais ñoom aussi problème de taxe d'impôt dañ leen di lu ñu jaay suba ba ngoon fay ko juuti toog te loolu moom wax dëgg yàlla benn benn jaaykat ñaanu ko mu mel ni daal nab bu euh, li ñu am ci ay jafe-jafe wax dëgg yàlla métti na torop par rapport à l'ancienne ndax booy comparer ñoom il faut xëy na li tax sax difficulté yi di gën a métti ci ñoom mooy il compare dañuy comparer à l'ancienne euh, ak ak période bi ñu toll nii ndax bu njëkk euh, je pense que waxoon naa que lu ma lu ci am da nga bal dajji ko léegi léegi nit yi saxatoo ko léegi mu jeex léegi nga jug dem ñibbi mais léegi tu ay jaaykatu lu may dañuy yendu ci marché yi du matin au soir euh, njaay mi du dox nit ñi duñ ñëw jënd ñu ne déet waaye nga jël sa bal ëmb yónnee beneen marché bal yi réer pour la plupart des bal dañuy dañuy dañuy réer ndax oto bi bi bi indi marchandise yi mën na ko jël léegi marché yi chaque jour dafa am deux marchés chaque jour dafa am deux marchés yow ngay xaar sa. xaar sa sa bal marché samedi bu Castor ñu yóbbul la ko marché samedi bu Wakaam nga defaat ay frais de transport indi mu mel ni daal seen liggéey bi c'est pas structuré et pourtant ça a un impact très important dans dans l'économie nationale ndax lu nga xamante ni ñu ngi koy dédouaner kilo bu nekk 148 francs nabu ak lii dugg ci ci ci ci ci fëgg jaay ci réew mi euh, bu ñu sañoon daal ki ñu denk wàllu woowu mu xoolaat ko bu baax a baax ñu ànd ak ki nga xamante ne moom mooy Miss People mbaax Mbakh Ndiaye mercredi bu jot ak euh, dossier ñuy waxtaanee mbirum euh, disque d'or ak it euh, lan moo tax mu gëcc ci même réew. voilà Zeyna euh, je pense que vous l'avez compris moom la ñuy waxtaanee tey li nga xamante ni euh, moom moo di raaye boobu la di disque d'or nga xamante ne musique bu Sénégal euh, gëj na ko am ci ñoom Youssou Ndour ak ñoom Thione Seck ak ñoom Coumba Gawlo Seck ñi nga xamante ni ñoom lañ ci waxtaanal indi ci ay explication balaa ñuy ñëwaat ci plateau bi parce que je pense que tey on a on, a beaucoup de choses à dire ci li nga xamante ni moom moo di sujet bi beaucoup explication mu mel nii daal mbalax rek buñ ci saxee dinañ raaya waxuma la géej de mais raaya lañ dul amati ci wàllu musique euh, ñu dem xool yi élément bi dellu saat ci plateau disque d'or di raaya boo xamante ni am musique gu Sénégal mënatu ko am yàgg na lool lu ni mel nag doon loo xamante ni ñenn ci ñuy yëngu ci wàllu aada ak cosaan naqar lu nañu ko te xam le ni rek li nga xamante ni moom moo di musigu Sénégal bile di mbalax jubbu ba ñu ko doon ràññee fi mu nekk nii amatu ko ndax nag li nga xamante ni moom lañ ci gën a nemmeeku mooy ak tële. Sénégal amul disque d'or de façon li ñu am ci disque d'or lu néew la euh, Laba Socé moo ko am États-Unis euh, Youssou Ndour Kumba euh, Gawlo ñoo ko am mu nekk lu palpable. mbalax neex na mais dañ ko war épurer gën ko setal gën ko teg si des normes internationales pour mën a pour mën a pour mën a génn. disque euh, door raar na fi raar na fi parce que musique sénégalaise exportable gul li ñuy tëgg mënaguñ ko jaay bitim réew te pour nga tendre vers un disque d'or il faut nga tëgg loo xam ne bitim réew loolu la soxla te loolu euh, suñu suñu musique yi defagu ko. il faut qu'on fasse les états les états la musique sénégalaise. parce qu'on est entre de faire une musique boo xam ni ñun rek ñoo koy consommer ñun ñoo ko comprendre parce que euh, lalul ci benn norme standard. ñoom sax daal di ci yokk ne disque d'or yi nga xamante ni ñenn ci artiste Sénégal yi ci gagné nañu ko duñu ko sante mbalax bile ñu yokk ci ne li nga xamante ni moom moo di mbalax mile kenn mënu koo génne ca biti réew. Seven Seconds c'était un morceau de de pop américaine euh, en collaboration avec Néné Chéri def ci bu am solo. mais du le mbalax ne peut pas en, en revendiquer la paternité parce que mbalax amu ci c'est comme euh, aussi le disque d'or de Coumba Gawlo c'est un disque d'or boo xam ne reprise benn morceau Myriam Makeba la pata pata donc ça n'a rien à voir avec le mbalax euh, disque d'or ak musique sénégalaise authentique ci jamono yi ñu toll ak lii ñuy yi di def kenn xalaatu ko euh, je le avec respect euh, xëy na ñoom Youssou Ndour wala Coumba duñ ko comprendre mais disque door yóbbaale ma la dafa am ci ñu àndal pour am disque d'or. ñu nekkee ak Youssou di c'était surtout en 94 je me souviens on a fait une boo xam ne on est revenu presque avec presque une dizaine de disques d'or de chaque mais loolu dafa nekk loo xam ne liggéey la boo xam c'est tellement important c'était un travail très très très fort mais ñuy fàttaliku rek ni c'est des titre yoo xam ne amoon na ci disque d'or mais du woon ci suñu musique. c'était une musique boo xam musique de collaboration la woon boo xam musique de collaboration internationale la woon ça n'a rien à voir avec avec le kàngam yi lee seen xam-xam màcc ci wàllu aada ak cosaan di ñaawlu yàkkam ci gi nga xamante ni moom lañu gis ci ndaw yi yëngu ci wàllu musique jamono jii yokk ci ne amuñu staff bi nga xamante ni moom lañu war a am itamit ndaw yi lee li leen gën a yitteel rek bokk na ci succès. boo ma saan seetlu Super Étoile bu ñu ma saan génn benn album buñ ko génnee immédiatement du neex les gens les gens se disent mais attends mais ñi qu'est-ce qu'ils ont fait encore ñi ban façon musique lañ tëggati nii alors bu ñu toogee 15 jours un mois tous les morceaux accrochent en même temps alors day mu nekk ay morceaux standards yoo xam ni c'est des morceaux yoo xam ne après gars yi dootuñu ko mën a muñ c'est des morceaux yoo xam ne gars yi dañu koy bëgg mais maintenant euh, li gars yi di wax naan euh, ay tube Kleenex la def da ngay génn benn morceau boo xam ne da koy def mu def buzz une semaine après on t'oublie keneen ñëwaat def beneen kii avec ça on peut pas faire une bonne musique. Euh, précipitation la ñuy def euh, di gaaw a génne mais tamit ils sont pas entourés euh, création musicale dafa laaj équipe un arrangeur un directeur artistique un réalisateur de bons musiciens. ba un bon producteur exécutif maanaam kiy génne xaalis joxe ko nga mun a def mois deux mois trois stu trois mois de di liggéey mais léegi nii ay morceaux yi ñuy génne mois de studio la wala sax quelques heures de studio loolu nag coro kenn mënu ci xalaat sax am disque d'or. non gars yi liggéeyatuñ pour disque d'or Sénégal musiciens dañuy liggéey pour succès et bien beau mais la musique au Sénégal qu'on ou non elle ne nourrit plus son nom parce que musique bi dafa nekk en déperdition boo xam ni. il va falloir qu'on qu'on loolu tax ñuy sàkku ci ndaw yi ñu daal di liggéeyaat ci anam bi mu waree itamit daal di am entourage bi gën na jël nit ku nekk ak li nga xamante ni moom la yellool ñu daal di ko koy jox dina bokk ci li mën a joyantiwaat musique gu Sénégal bi lee. naa génne naa génne mais nañ génne lu baax mais y a un problème aussi boo xam c'est un problème fondamental boo xam dans la musique sénégalaise parce que ñi nga xam ne ñooy relier la musique sénégalaise amuñu éducation musicale de un et euh, comme j'ai toujours dit animateurs yu bëri dañ may mere mais les animateurs en général sont ceux qui font la promotion de la mauvaise musique sénégalaise. ñu liggéey bañ a yàkkamti ñu nangu fusion wu jeunes yi ak mag ñi ah euh, liggéey corps de métier yëpp taxaw. ñu mën a liggéey mu jëm kanam mooy li ma la waxoon léegi euh, arrangeur directeur artistique de bon musiciens un producteur exécutif jël musique gu ethnie yeneen yi sukkandiku si mun nañu taxawal lu dëgër mais bu fekkee dañu bëgg a jël mbalax bi kese kese kese kese kese à l'état sec noonu dina jafe pour ñu pour ñu exporter musique sénégalaise. un album boo ko defee aux États-Unis ñu xool xam ni c'est un c'est un album qui est bien fait immédiatement dañ lay nominer pour les Grammy Awards comme ça nga bokk ci compétition bi mais ici au Sénégal amuñu benn instance de régulation il y a plus de producteurs les gens s'autoproduisent et da nga gis woykat boo xam xamul dara bëgg a arranger musique boppam. on a une pénurie d'arrangeurs et ensuite euh, euh, lu neex waaye def ci musique yaakaar nga ni fi ne loo créé amatul paroles yi amatul paroles yi gars yi soxlaatuñ ko les bons arrangeurs yi nga xam ñoo fi nekk di def musique di xool kii parce que pour man gars yi dañu comprendre lan mooy rôle arrangeur ak lan mooy rôle directeur musical. Jimi mbay di ñu fàttali yoon gi ñuy jaar ngir mën a am disque d'or. dépend du pays am na ay dëkk yoo xam boo fa jaay cinq cent mille am disque d'or am na dëkk yoo xam boo fa jaay deux cent cinquante mille am disque d'or am na dëkk yoo xam ne par exemple pour le platine il te faut un million euh, euh, pour nga am disque platine il faut nga jaay un million mais euh, en fait man du du du du course sax vers les distinctions mais nit pour man la nga xam ni da nga koy def il faut faire en sorte de fair mieux que tout le monde. Youssou Ndour ak Seven Second Kumba Gawlo Seck ak Patapata Thione Seck ak Orientissimo gi disque ak géej fii ci réew mi ñoom ñii nag di yaakaar ci ndaw ñi rekk ngir mbalax daal di ñu mën a delloowaat ak bànneexu am disque d'or mu ngoog mu mel ni nag euh, ku ci nekk joxe nga sa xalaat ci mbir mi mais ñoom ñëpp dañu bokk benn affaire euh, lu ñu waxandoo muy ni mbalax bi moom buñ ko toppee dina gëj effectivement dina géej parce que euh, dégg na ñoom ñi nga ko waxee ñu jaajëfal leen bu baax a baax ñoom sax jàpp nañ ni ba tey disque d'or yi nga xamante ni moom moo ñëw ci réew mi du disque door boo xamante ni le mbalax peut en revendiquer la paternité euh, parce que euh, bu ñu xoolee Youssou Ndour du musique am moo ko may disque d'or il a fallu que c'est vrai que collaboration ci musique la bokk mu collaboré ak Néné Chéri ci Seven Seconds pour mën a am disque door gis nañ ni que Kumba Gawlo elle a repris patapata pour mën a am li nga xamante ne moom moo di disque d'or euh, Thione Seck ak Orientissimo du woon disque d'or boo xamante ne comme ñee nga xamante ne dem nañu biti wala moom euh, président Abdou Diouf moo ko décerné woon li nga xamante ni euh, moom moo di disque dooram ñoom ba tey sax ci ñi ñu waxal démb ñu ngi xamal ni ku ci mel ni mbay Dieye Faye Assane Thiam ànd nañu benn américain bu tudd Paul Simon ci benn ci ci. ci ci benn morso boo xamante ni jaay nañ ci ay millions d'exemplaires xëj na boobu aussi bu ñu bu ñu ko xoolee li ñu jaay joxe na disque d'or Moussa Traoré ak Soda Mama Fall ànd nañoo kenn ku tudd Tandian Libertad benn péruvienne ñoom également ci benn morceau boo xamante ne nii moom aussi li mu jaay ci ay ci ci ay disques mat na disque d'or ba ñuy naan sax est-ce que yeggul ci disque platine yi donc euh, mu mel ni du mbalax bi moo ko mën a moo ko mën a joxe même boo xoolee fii ci Sénégal même de jour jours musique yi nga xamante ni ñoom ñooy faral sax di am raaye dañ ciy génnee mbalax mi carrément dangay gis ni que ñiy yëngu ci wàllu rap par exemple groupe bu mel ni Daara ji Family ak ak School of Life même bu fekkee ni gisoo leen ak ay disque d'or wala dara saa su nekk biti réew da ngay xam ni que am nañ fa taxawaay bu am solo da l'étranger bu ñu ñëwee ils préfèrent liggéey ak ñi nga xamante ni euh, ñoom ñoo di ñoom ñoo di mbalaxmaan yi wala ñi yëngu ci acoustique euh, plutôt euh, ñoom ñoo di rappeurs yi plutôt ak ñi yëngu ci acoustique plutôt que di liggéey ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo di. mbalaxmaan c'est quoi le problème du mbalax. le problème du mbalax mooy ñoom Jimi mbay wax nañ ko Zeyna problème mu mbalax bi mooy yàkkamti médiocrité beaucoup de bruit c'est-à-dire mbalax bi bu dee ci réew mi ça marche Sénégal loolu la bëgg na góoreeg ku la koy ku koy daggateeg ku koy corotee on n'en disconvient pas mais suñu xasee ba mm, Europe sax sari na Gambie gii boo fa demee duñ déglu mbalax euh, on nous parle de tournée internationale tournée internationale gisoo benn wala raar na bu dul ay Youssou Ndour ak ay Coumba Gawlo Seck nga gis koo xamante ni peut-être benn maison de production bu nekk aux États-Unis wala en Suisse wala en Allemagne moo ko gis intéressé wu ci musique am mu jaral ko mu bàyyi fi réew mu stand by ko pendant des années dem toog foofu liggéey ñu koy dégg fu nekk raar na ci wu Sénégal tournée yi ñuy dem yëpp à l'étranger benn sénégalais euh, benn raxu moo lay tëgg wala benn maxu moo lay tëgg wala salle ba ngay dem c'est des sénégalais qui viennent xool sa spectacle et je pense que musique gu Sénégal dafa war a dépasser foofu Jimi Mbaye mi ngi koy wax nee na moom boo gisee par exemple moom mi ngi liggéey ak ñoo xamante ni eh, li ñuy def mooy wóor mbalax fexe ba li nga xamante ni moom moo di mbalax mi ñu teg ko dans les règles de l'art dem nañu ba léegi benn morceau dañ koy enregistrer en une journée et ça devient grave eh, dem nañu ba ku bëgg a génne album ci en un laps de temps nga koy def parce que recherche bi nga xamante ni moom la album yi di laaj réellement amatul ci musique bi gëstu bi nga xamante ne moom la ñuy laaj amatul ñenn ñi dañu naan mag ñi dañu teel a ci musique bi mais xale yi mag ñi sax dañ lay expliquer ni que xale boo boo ci interpellé interpellé waat ci musique am mu ne dafa soof ak ba mu ba mu ciy toll melu woon ma donc ci ku mag yi dañuy préféré sax ñoom toog à l'écart bàyyi xale yi ak li nga xamante ne moom moo di seen musique te loolu mooy loolu mooy li nga xamante ni loolu mooy catastrophe bi quand même euh, parce que bu ñu bu ñu bu ñu demee ba euh, raaya mënatuñu ko andi ba tey booy seet raaya yi gën a mag ña ko daan jëla koy jël mhm. c'est-à-dire fi Youssou Ndour toll ci toll ci woy indi ko fi ci raaya euh, bu musique bi continuer nii bu ñu sukkandikoo ba tey ci ñu ñu waxal dina jafe xale bu ko fi andi ni Coumba Gawlo def ni Thione Seck def ni Ismaïla Lo def tu par exemple xool ay Cheikh Ndigal Lo ay Idrissa Diop ay Wazir Diop ñuy remplir ay saalu cinquante mille personnes mu fees dell nit ñi ñëw di leen enjoy seen musique moo leen ko may euh, gisoo fi sénégalais buy dem à l'étranger remplir saalu trois mille amul même bu dee ni 3000 personnes yooyu am na moodu moodu yi ñooy ñëw sax parce que dañuy namm Sénégal loolu noonu la ñuy soxla maintenant ku ci dem nag bitim réew ne maa muus jël sa benn musique rek daal di wàññi. bruit bi wàññi ko tuuti teg sa benn leket ak ut sa benn kooraa kat ñu naan ma ngay acoustique alors que du loolu en fait dañuy tooñ ñiy def acoustique parce que acoustique musique la boo xamante ni c'est pas donné à tout le monde ñëpp mënuñu ko ñi koy def dañu am mérite donc mënoo di mbalax di mbalax di mbalax ba ñu ne mbalax bi foofu la nga dem fee xam ne bu ma mbalaxee xëj na du dox ma ne tey damay acoustique daal di nekk acoustique man ci saas si wala nga nekk jazz man ci saa si donc loolu aussi dafay poser un réel problème euh, ba tax ñi nga xamante ni ñoom euh, dégg ngeen ni ñu ko waxee ci ni ñu ko waxee ci li nga xamante ni euh, moom moo di dossier bi rencontre d'énormes difficultés difficulté yu bari bari bari bari bari te je pense que Jimi Mbaye mi ngi koy wax naan dañu war a def les assises les assises de la musique sénégalaise parce que dafa bari ay problème euh, lii nga xamante ne moom la la rappeurs yi mën a àndil ci ci ci ci ndam euh, mbalax maan yi mënuñu ko on est désolé de le dire bu ñu sañoon mbalax mooy jiitu ci musique yi parce que ku ne ci ñun boo xëyee di nga ko déglu mm-hmm. neex na mais neex bu yem ci réew mi amul solo le plus important mooy mu exportable malheureusement exportable boo demee Gambie fa mbalax yem déglu mbalax parce que yaa euh, mooy ni ñu ko waxee sànq rek problème bi ci ëpp bokk na ci précipitation bi ñëpp bëgg wéy ba pare un autre problème balaa ngeen di ñëw Mamika mu ji mm, kenn xamatul rolu kan musiciens yi amatuñu. da ngay gis ko produire boppam parce que les producteurs se font loolu xam nañu ko nga produire sa bopp arranger sa bopp mixer sa bopp defal lépp sa bopp te directeur artistique dafa am solo ci li nga xamante ne moom moo di euh, moom moo di liggéey bi parce que daf ci am rôle parolier bi ki lay bindal ki lay lii mais comme ñoom sax ñi ngi koy wax ñi ngi naan dafa dem dafa mel ni artistes yi léegi dañu iñaanee ñeneen ñi seen xaalis parce que droit yi ñu lay fay pour euh, euh, ki nga xam ne moom mooy directeur artistique da ci am wàll parolier bi da ci am wàll ku nekk am ci wàll mais malheureusement yow pour loolu lépp revenir ci yow dangay ngay bindal sa bopp arranger sa bopp mixer sa bopp defal lépp sa bopp donc ñi nga xamante ne ñoo waroon def beneen liggéey bi nga bëgg a jël liggéey bi yëpp aaki ah moo ko te nekk fépp nag yàlla rek ko mën